danga def. maa ndekki nga ba suur bi. waaw ndekki naa ba suur alhamdulilah. maa damay ñëw dem sa kër Baye Ndiaga. waaw moom laay seeti. waaw waaw incha allah maa ngi dem te ñëw. dina ko dégg incha allah. jërëjëf maa ngi dem dafa tàng na. waaw waaw tàng na moom. waaye yàlla baax. waaw ma dem te ñëw rek. ok. ñàkk jom yow daal nii rek ah jubal ci sa bopp waaye nag àddinaa ngi sa kanam ñàkk jom bay dëgër léegi ah xam ne tëdd ba bi tàng ngay doog a yeewu ah waaw Baye Ndiaga moom it ku ko tene na rek sant yàlla waaye Baye Ndiaga daa xiiboon depuis xale la ba tey feebaram bii hmm? waaye nag comme que tene na alhamdulilahi rabbil alamin sant yàlla bu baax séntu bu njëkk bi wala suba tay la de ah waaye yàlla baax na bu dee tey ñu jëlit bu dee suba it ñu jëlit la xam ne dalaa war moom te du la wàcc kon def ko rek mooy sa wareef def ko dong mooy sa wareef waaye naaj bi nawet tàng na de li ma sant léegi nii tàng na torop tar nga noonu lool sax de gi nor na a mel moom dana métti départ tàng dana métti lool sax daaw seddoon na waaye sant yàlla dara mënul yomb koor moom ngeen lu si nekk saa yu jotee nga def ko rek sant sunu borom lu wér la eh bul wax aw bur këram ma xamul ma jaaxal boobu ba tax sa téléphone bii di kacci kaccal di wax te gisoo ñu ngay waxal. moom <laughs> awa baax na jigéen bi rek la ñu am temps pour baax na lii ngeen di def ban takkal leen fi wujju te man xam nga ne man du ma góorum benn jabar de. wax wax ah baax na waaye ma ni la wujju dara amu si. lu leer laa la wax. waaw bàyyi wu. ah bu leer leen wujju rek ngeen nekk fii di kii. kenn du eh, la fekk si. mais li nga na. ah dama di ci kaw. may ma rek ma dem tuñu. da ngay dem xool. baal ma dem xool. li moom loolu dëgg la. li bàyyi noonu. sa nijaay mu ngi dem ci kaw de. ah sa di mu ngi dem yëg ba ci kaw xool fekk dëgg la. yow xaar nga bu ñëwee xool lu mu la indi ah weer feeñ na de. lu tax sa lamine bi dafa gaaw yow ah. baax na yow loo def ba gis wee bi loolu moom a jaaxle. sama nekk ci kaw la nekk tari. waaw su nekk ci kaw la loolu dina dina. wala da ngay dem nga xool ah. wala li moom. waaw baax na. suñu yaay ñëw fekkee ni gisul dara ma xool rek ne la bi feeñ na loolu rek la. waaw xaaral ba mu ñëwaatee rek wax ma ne moom gis na ko ma xool la laa moom sa làmb bi gis naa ko gis naa ko doo woor sax lu nekk loolu soo gisee wér ana njëriñ bi. man ci toog rek nga dugg ci biir wax fen rek xaw mosuma gis xale bi mun na si yoo laay moo tax soo génne ci biti day rafet rek ñoo lay doon mais pour ñu expliquer benn moom ma añis. Nijaay Gogodo. waaw ma ko. baax na jeex na toogal. Alice Gogodo. Alice. oui. ah oui mais oui. Ah, dañuy damali de dañuy damali. yow peu. C'est moi qui venais ressembler tout. Parce que le, le Ramadan, ça fait Le pain. Il y a des certes sur la maison. Pas de, pas de mili. accër koon amul sol lu leer amul dangal amul lekk ci kër gi. waa nijaay mun sol euh, xaw ma aj dóor. yow maay sa morom sa morom daf fi ne ba ngay waxum aj dóor ate yow yekkal ma kii sart yi xam nga sart ci koor Alice mon mari te dit ne pas porter les habits qui sont pas bons on va jeûner demain. pare nga fa nga yam ñun ñëpp xam ni weer bi weeru njëngal jéggal la yërmande kon nag nañ profité jaamu yàlla. Mon mari te dit que demain on doit échaîner. On doit pas faire le bruit, on doit porter les choses qui sont bien. Et rester à la maison, faire calme. Parce que nous, on doit gêner. On est des musulmans, nous. bi waaw di baalu àq ñëpp nag di baal àq ñëpp yal nañu yàlla boole baal ñu dugg ci koor gi bisimilahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin ñëpp. tu demandes de pardonner de lui pardonner tout le mal qu'on t'a fait ici. je l'ai pardonné. Oui. Mais votre jeune là, c'est pas mon problème. Jeûnez et laissez-moi. Moi, je porte ce que je veux. Hey, je porte ce que je veux. Bon, je porte ça, je parle sénégalais sur une barrière. Oui. Venez votre jeune, ah. laissez-moi. Ah, je porte ce que je veux. c'est un cadeau. C'est un seul doué. C'est moi qui ai apporté ça. Ah. dina neex de. dina neexee yaa ngi euh, topp di gunge weer ah. dem kër gi yow yow yow dinaa la takk xala. waaye nga naan xale kii di gees nga ni xale la ah. loolu bëgg a daanu fii. loo loo woor gi rek moo tax ngay tàgg nii di nga fay de ndax di nga woor